salaamaaleykum sëriñ nuyu nan la. maa lay ziar Youssou. Ah, li xew biir ah, coalition benn Bokk Yaakaar ñu gis ne fi ñu toll nii njiitu réew mi seen njiit di président Macky Sall tànn na ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba mu war a porter coalition benn Bokk Yaakaar ci élection présidentielle yi ñu dëgmal ci février 2024 ah naka nga ko gisee. waaw d'abord maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ñu topp ci à travers chaîne Sen7. Mhm. di nuyu waa Mbacke yëpp di jiital si nuyu bi. Serigne Moundaha Bachir si teg euh, sëñ Amdi Moodu mel xarit général de Baye ak mbollem kilifa fi nek yep de nuyu population département de Mbacké waaw euh, comme li nga wax euh, président Macky Sall moo koy nuyu de passage de suñu patron du secrétaire général APR tan tànn boo nga xamni ñu ko doon xaar depuis du yàgg ba mu jiital euh, le premier ministre Amadou pour mu la coalition Ben Bokk Yaakaar je pense que euh, Charles bi nga xam ne nii moom ci boppam lu mu xalaat la ba jàpp ni war naa war a mën a conduire euh, li nga xam ne coalition bi et loolu nag euh, dégg nañ ko ñëpp comme ni ko ñëpp déggee et en tant que militant danañ apprécier le moment venu Euh, léegi lan nga wax ci choix bi choix euh, bi tànn na Amadou Ba euh, ndax da ngay ànd ak Amadou Ba dem élection présidentielle 2024 wala da ngay wut beneen candidat. waaw loolu moo xam ak gunc ci loolu moom bërki démb le président choisir Amadou Ba ne moo jiite coalition bi nit ñaa ngi manifesté wu kenn ku ne ne moom ngay jàppale wala jàppale woo ko wala da ngay nët et dégg naa nag ñu bëri wax ñun nag d'abord day baax ñu def historique bi. APR. APR Mbàkke moom ñu bëgg ñu bañ actionnaire laa ci ñu fi wax yëpp ñu si ëpp dañ ma fay fekk 2008 kenn mosul xalaat Macky Sall day jël nguur gi ci laa am nag moom ba fii comme légitimité kenn ëpp ma ko maintenant nag y a des am na ay arrivistes yi nga xam ne ni récemment y a de cela quelques années dugg si part bi tey ñoo yor coow lii di wax noonu nag wax dëgg yàlla du ma leen tontu. parce que bu fekkee nit ki. dama dégg benn bon xam-xam di wax ni bu fekkee nikki bu tontoo kiy wax da xol xool ba est-ce que bëgg naa mel ni moom comme ñooñu tontu leen du li war. maintenant lu choix du candidat président li mu wax président tànn na tànn le premier ci ci ay choix ay ay candidats yu bëri. moom mi tànn amaana am lu tax mu tànn ñu nit en tant ay ndaw en tant que ay politique ñu ànd ak ay nit jóg ñoom ñu ne dañuy ànd ak ñun ñu ay ndaw lañ xooluñu am nañ dara xooluñu amuñu dara ñu ànd ak ñun bàyyi ñu bëree bëri et je rappelle dañoo taxawoon nag parce que day baax ñu def historique dañoo taxawoon ne sëñ Mbacké fay bu génnee kenn ko topp loolu moo doon la débat bi ñu doon ñu doon njëkk a wax. yàlla def ñu dem parce que dañoo ay ñaari ñett yàlla def ñu dem ñu góorgóorlu sans dara ànd ak suñu mbokk suñu xarit ñu am liñ am liñ am nag mu bëri ak néew man xeebuma ko parce que élection yi ak quelque jours des élections laa décidé bokk si élection yi malgré contraintes yu bëree bëree bëree bëri ñu am li ñu am waaye ñi wax naan dañuy dañuy mbubb tour nañu wut ak nangam nangam ñom sommes wara Nous avons am am ñu wax sax ne. <coughs> nga génnee ci ba nga de ak galo démon Dakar président recevoir la ñu bari de nan bu mu la jox nga démon mom nga Nous bi yoon motax ngay def lu ngay def jëf ju ci la xam nga ñi wax bo xamul da ngay président man joxuma xaaliss ci caméra waxé joxuma xaaliss tax man bor ci non non c'est pas vrai c'est pas vrai Léon ma du xaalis moo yóbbu président soxla woon dajeeg ay nit moo yóbbu leen fa lii mooy dëgg tamit ba kenn kenn du ko dindi lii ñuy wax tamit man soxlawuma xaalis dama je pèse bien mes lii nii képp ku jàpp ni ay chantage la ak ay nangam c'est mal me connaître dinaa la benn affaire gis nga bu nit ñi jàppee ay Gallo Ba ak ay ñenn ñoo tax ay Amadou Ba Amadou Ba ñi ko gën a jege am na ñu ko gën a jege samay waay lañ

directement nag laa la wax te du jaar ci ñi ñuy xalaat ñëpp mais dama ne damay topp logique politique dama ànd ay nit gënuma leen ci benn boor ñu ne mën nañuy jàppale mais bu choix amee dinaa toog déglu leen la ngeen xalaat fu ñu jëm ku ñuy jàppale est-ce que dañuy jàppale président est-ce que dañuy jàppale keneen ak keneen dinaa leen déglu donte man am naa suma choix bopp mais nag l'idéal mooy booy ànd ay gor gënoo leen ci benn boor da nga leen di déglu ba pare boobaa nag bu ñu waxee li jaaxal nit ñi kay mooy. Euh, sëñ Mbacke bi ñu koy nommé euh, est-ce que dafa consulter woon base? bi muy bi muy dem ci président de la république audience est-ce que dafa consulter woon base? bi muy dem élection locale est-ce que dafa consulter woon basam ñu bëri ne euh, consulter woo ko lan moo tax ñu nekk Amadou Ba dañ koy tabb mu jiite coalition benn boo ko yaakaar nga laam nga langaamu si ginnaaw ne da ngay dem consulter sa base. waaw xam nga xam nga ki ñuy wax loolu c'est parce que dañoo xamul suñu démarche. Mm-hmm. mooy li moo rek. Mm-hmm. nit ki boo ko xamul da ngay laajte.

waxalee li ma jëlee si président parce que ñun gëmuñu ne da ngay nekk rek di buur di bu muy joxe ay directives ne kaale ñu topp ko parce que xam nga lu ñu ciy bay par exemple tey da ne da dem jàppale ci x x di sama waay man ma ne gars yi kaale ñu dem jàppale ko derrière est-ce que ñëpp nañ ma topp est que nit ñi duñ jàpp sa intérêt personnel da ngay topp donte parti bi am na lu bëri luñ ci luñ ci metti loolu dootuñu dal Macky Sall li ma président Macky Sall li ñu ko may moom rek lañ ko may parce que moom li ma booleeg moom mooy amour engagement politique ci moom laa ko defee loolu ci Macky Sall rek la. mais mais Serigne li nga jot ci li nga jot ne bii yéen a duggandoo ci parti euh, moo yow nga jiitee nga doon responsable politique nga jékki-jékki rek yëpp ñëpp yow lañ yow nga topp ci Macky Sall Macky Sall décidé nga ne dama koy xoolaat est-ce que loolu tamit euh, méngoo na ak charte charte parti APR. APR APR Mbàkke kii jiitu ma fi ku ma fi jiitu boo weexee boo waxee bàyyi Maguette Diakhaté wax bàyyi bàyyi Moon Ndiaye amatul kon jiitu moom loolu moom c'est un faux loolu c'est un faux man discipline de parti la ma sa respecté jusque là ay dégg naa nu ñuy wax naan ay Euh, dégg naa ñu naan dañoo génn élection locale président dafa joxe directive ñu génn loolu c'est foo faux débat loolu ñu koy wax c'est parce que ay ay discours yi nga xam ne ne ay partisans koy wax élection nationale bu fi mës a am nationale laa wax damaa jàppal président Macky Sall législative yu ñuy wax ni waaw am na ñu nekk si biir euh, xam nga doon man man ku ma xam-xam ne ni man lu ma ragal wax toog fay jooy man lu ma àndul damay taxaw ne fàng comme ni ma ko defee si élection locale aw lu may nëbbatu lan laay nëbbatu comme Macky Sall moom nañ ne moo jiital diw moo mën a taxaw ne ànduma ak moom léegi lu may ban ban sens la am mooy topp ci lu nga xam ne góob ma ko. loolu ñi koy wax sax ñi ngi koy waxal sax dañ leen xeeb galo bu fekkee ni bëggulu neex galo tax galo dal leen see parce que galo xam ne kan mooy seen Mbàkke Faye ñoom ñuy wax nag ñoom ñu ma xamul parce que nag. Euh, si am loo Je gis nga ay ndaw gone def fi gone yalla dafa def lim def dara man du man bob, may sama bop du man sama bop de li nga wax pour vous répondre man milité APR de 2012 Maxal pouvoir 2022 lañ may do a musuma sama discours musul changé récemment ñu bëré bëri ay arrivistes Je bëri nañ sama kaw kenn musul dégg ma wax léegi ñii di wax nii gone yii di wax xam nga ñu si bëri ñuy wax tur lañ bëgg parce que ñu ñu si bëri quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñuy wax man maa doon seen patron Kër Galon. ah bon ah loolu loolu mooy dëgg xam nga loolu ñu si bëri maa doon seen man maa leen di jox directive kaa leen réunion kaa leen takk banderole kaa leen kaa leen taf pancarte man maa leen di jox directive bi ma fu jugee la ñuy mën a wax ak Galon.

Euh, moom laay wax sànq nii gis nga dafa am ay gone yoo xam nii xamuñu lu xew man je pense pas que li ñuy wax galo leen koy wax loolu yaakaaruma ko nag parce que galo bu mu amee solo dama yëg sama téléphone boobu xam na li may bu baax a baax les problèmes yi am yëpp dama yëg sama téléphone ne ko ah telle chose nangam ak nangam ba bu ñu bëgg a màggal moo tax ça m'étonnerait li ñuy wax mu jóge ci ñoom wala comme waxu leen xew moom man lu ma am xalaat dama koy wax nekkoon ko nangam gi nangam gi mais pour preuve ministre bi ñu toogee au conseil di débat ci mairie bu Mbacké man mi ñi jël kaddu ñi njëkk jël kaddu ne Macky Sall daa la def ministre ci laa bokk ne la def ministre keroog bi ñu perte yi bokk naa ci ma njëkk a bokk naa ñi njëkk woo li ma dama ne ko defet bi ñu am nii Macky mooy principal responsable moo fi deful dara loolu laa gëm. te pour amuñu biñ ko demee ministre tok nak mom moom tok monako bo amé loy joxé joxé ko man boma joxé dara doyna seuk sëkk. ko loolu. mais limay ci caméra lay wax bima devant seigne Saliou Bousso bi toog Mor Mbacké ñu toog ma ne ko boo jox jox ko si nit ñi soxlaaluma la dara soxlawuma ben responsable boma ko jox ma delloo monako tay ne ko tey xam nga lan laay ñaanal poste bi tremplin la war doon ci yow manam tay je vois galo Ba ailleurs.

on n'a pas de problème personnel. Mm. on communique ñu ngi waxtaan. lu ma xam xalaat dinaa ko léegi nag c'est à lui de voir mm-hmm. li ko sëñ Mbacke Faye di wax wala li ko alaas nooy di wax dana ko appliquer loolu moom responsabilité boppam la kenn ko ko forcer. Mm-hmm. mais man que ma war mm-hmm. en tant que acteur mooy bu ma en tant sama frère la me disais ah telle chose telle chose telle chose maintenant nag ñi nga xam ne ñooy gravité autour de lui nañ def nag c'est l'occasion ñu def ndànk parce que xam nga lu tax. li mu mën a wax bëri na. ñuy wax. parce que nag bu fekkee ni euh, ñu si bëri man maa dem démarché leen. am na ñoo xam ne bi mu leen démarché dañoo bañ saaga dañ ma fi loolu wax nañ ko waaye ki topp yéen da ay suq ngeen loolu dégg naa nag bu mu neex tey ñoom ñu ñëw di wax parce que man wax dëgg yàlla li ñuy def taluma ko wax dëgg yàlla. lu ma ci waaye wax baal naa la dégg naa suñu ne damaa war a démissionné dañ maa war a dàq yëpp mais dañoo xamul ni man ku gëm yàlla laa nag ku gëm yàlla laa damaa toog 2012 ba 2022 nañ may doog a nommé je li ma doon dundee loolu mën naa ko dundee dama toog fi woon ñëpp ñëw bi ñu choisir Amadou Ba man leen takku leen buñ ma dàqee suba ñu delluwaat ci lañ nekkoon man ay postul léewuma kenn koor pour vous mettre à l'aise ni gars di wax man ñu dàq mu tay ak suba la yemale tout le temps bu may xëy damay japp ni man na jógee poste lan may poste man ndaw laa man je suis assez jeune poste yoru sama politique et lolu daf may tiital nak bu moy déggee ay ndaw diko wax et ñom ñoy taxaw nak nan nañu def la promotion des jeunes de Mbacké xoolal incohérence boobu noonu man li ma yor mu bëri ñu am na ay doomu Mbàkke yu mu si jàppale loolu lañ bëgg wàññi semence bi maa ngi góor góorlu li ma yor mu bëri mu néew may reyante ay doomu Mbàkke muy Mbàkke nag ñoo xam ne insérer nañ biir Mbàkke am na ñoo xam ñi ngi liggéey Thiès ñu Dakar ñi Fawzeyni ñi ñu cetera et cetera ñu ngi koy def ñi Bambey waaw léegi ñooñ buñ taxee ne léegi na yàqu bu yàqu bu mu yàqal ma l'essentiel mooy man ndaw laa liggéey moom dinaa ko def mu ma jógee feek mu bañ a dem feek dinaa liggéey ñi ma àndal tamit yàlla ngi lay suturaal danañ ko nit di suturaal je pense que débat bi war na nekk beneen niveau ay yi ñuy wax yëpp je pense pas que mu jógee nag ci seen responsable parce seen responsable xam na kan mooy sëñ Mbacké Faye mu mel ni ci élection locale yi doon euh, nga pression boo xamante ni ñu bëri doon nañ la woo ay kàngam ay ministre naan na nga rangé ci ginnaaw Gallo Ba nga bañ loolu ndax bii yoon wa xam nga euh, du ay directive comme ni ko nit ñi da waxee parti bi dama cee yàgg xam leen tey ñoom bare dara di xew xam na ay kilifa dañ may wo naturellement dem leen am na ji lañ may wax mais c'est pas des directives du ay directives yu ma kenn jox lolou dafa mata leral parce que nit ki buy wax day wax lu mu xam man j'ai des amis un peu partout dans le parti Non, la ko maire amé ñom des près des amis en commun dañ ci dox jàmm ne ah dem leen ànd ci lool la mais kenn joxuma benn directive lii am tamit naturellement am na ñoo xam ne dañ la woo wax ne ah bu ñu sañoon ñu ànd bu ñu sañoon ñu def nangam mais kenn ku ma si jox directive ba nii may waxee amuwul waaw ñaar rek la ñuy wax daal di tëj ci chapitre boobu bu njëkk bi mooy euh, loolu moom dama la koy laaj pour ngeen di gën ci indi question tontu lu leer nañ ndax dajeb sëñ Mbacke Faye ak Galo ba mën naa nekk ci diwaanu Mbacke bool ñu ànd bokk seen affaire di ko liggéey beneen beneen beneen beneen bi ci des mooy euh, sëñ Mbacke Faye ñu bëri nee nañ bii yoon bu bu demee feneen kuréel ci amul Ba boo moytuwul carrière politique fi lay yem loolu aussi bëggoon nañ nga tontu ci. waaw xam loolu lépp nag. Hmm. Euh, kenn ku ne da am sa sa xalaat bopp la. Hmm. ñu wax loolu nangu naa ne loolu la. Hmm. kenn ku xam ni ngay tojee sa bopp buy. Galaba bu yàlla waxee nañu ànd ci après dañuy ànd. bu yàlla waxee duñu ànd élection duñu ànd. foofu laa ci mën a yem. parce que nag man j'ai respecté mes militants. ak ñi nga xam ne nii. bu doon ñaar nit sax mën naa leen a jëm noo fenn dinaa leen déglu ba pare bu ñëwee ma demal ànd jeeg parce que débat du galu ba parce que loolu la nit ñi di réere mbir le candidat tuddul galu ba le candidat s'appelle euh, Amadou Ba yaa dootul naturellement yaa dootul candidat mais pourquoi ñu bëgg def ni ànd jeeg galu ba man bu may ànd ak Amadou Ba du galu laay àndal du galu laay àndal mais pourquoi parce que Gallo amuñu problème maak moom amuñu on n'a pas de problème bu ma seen suuf dëgg yàlla parce que c'est comme si débat bi Gallo la du loolu parce que bu ma seen ñu wax ci leneen moo ëpp mooy ëpp njariñ dëkk bi ëppal njariñ d'accord Mame Boye Diao ndax dégg nga ko dégg <laughs> pourquoi nga posé ma question boobu dinaa xam nga nag euh, dinaa non dama dinaa tëj débat boobu une bonne fois nag mhm. Mame Boye sama grand la mhm. comme ni ko keneen ak keneen doone comme ni ko Boun laa doone comme ni ko Abdoulaye Daouda doone sama xarit noonu la ko moom doon ak keneen ak keneen ak keneen euh, xam naa ne li jot information booy dafay ñëw ñëw na si kër gi Mbàkke nag dañuy dégg tel na rajax waaye man je suis en politique li may wax nag ñu bëri fekk nañ ko am na ñoo xam ne sax ñu ngi ci gànga galo ba gis naa ne nee nañ ma ñëwoon nañ fi bi fi Mame Boye di ñëw. Mm-hmm. ñëw na fii xam nañ Mame Boye ni mu demee ak sama frère Abdoulaye. Mm-hmm. ñu doon ay waay. Mm-hmm. lool sax. ñëw nañ fii comme chaque année mu fi ñëwee bu màggal jotee dafiy ñëw. lu dul màgg ñëw naturellement danañ seq jàmm mu am lante il est candidat moo ko si ñaanal jàmm. suñ moom defal ko li gën. maintenant nag ay dégg nga ko dégg ko loolu moom c'est un faux débat loolu du du pour man. du débat comme ni may déggee kenn. débat la ndax waxtaan seq seq loolu aussi bëgg nañu waa askan xam-xam ci dara. mais yow dangay ngay confirmer ne dañoo waxtaan wala. non non confirmer ma damay damay. Ah, dama ne daa am lu mu la tënkal. dama ne Boun Abdallah ni mu doonee sama waay. Ablaye Daouda doon sama waay mhm. noonu la Mame Boye Mame Boye doone sama waay mhm. tënk nag mhm. ak waxtaan moom kooku du débat du débat en tout cas actuellement du débat parce que yow li ngay def xaw ma ko xam nga yow gars yi nga lay na yaa ngi jàppale diw ak tool xam nga dara de du taxaw boo xaw ma li ngay def kon nañ mën nangul tamit ne dañuy déglu la base d'abord sa waay ji moom ngay tuumaal waaw non xam nga débat yaa ngi mu li moo sànq yéen ñaar seen diggante man du ma ci parce que dafa transcender la politique euh, mooy te loolu mooy le charme dans la politique. Mhm. parce que kii day far fii kii far fële. Mhm. voilà ay debaa débat d'opinion ak ay positionnement yooyu. Mhm. Euh, day animer day day animer le débat politique rek. Ah, jaajëf Serigne ah. léegi ñu ñu dugg ci dëkk bi naka nga gisee tolluwaay dëkk toll nii dëkk bi taw na. taa tolof tolof yi nit ñi mënuñoo dem mënuñoo dikk mbedd yëpp taa courant bi tamit bëri na lu muy coupé yenn gox yi ñu courant ndox mi tamit gis nga ci màggal bi yan kàddu nga yëkkati di ko jagleel sa frère euh, ministre bu bu bu di Galo Ba. waaw le maire de Mbacké wax dëkk bi moom kenn mënul dem fen dëkk bi moom fépp da xuus. et loolu xamu moom moo tënk boppam. boo diggee gars yi di ko wax naan ndox mi ñëpp xam nañ ni loolu compétence su état la ñëpp ko xam. waaye nit da wax ba tënk sa bopp. moo tënk boppam ndax bëgg rek jot ci dëkk bi. les faits sont moom moo dem TFM wax ni ci ndoxu Mbàkke mi di xalab euh, euh, dëkk bi ni muy taawee. vidéo bi ñu circulé. bi mu sol doon wax ci ndoxu Mbàkke. mitin boobu ndaje moom maa ko organisé. maa ngi woon Mbàkke jóge keroog bi muy wàcc man maa ko jëlee néegam. parce que xam nga dafa am loo xam ne nii bëgguma see dugg. man maa ko wàcce néegam parce que boobu nit ñi ñëw nañ nit ñi bëri man maa dem néegam ne ko wàccal la mu wax lu si ëpp lu si lu si ëpp laa la wax ci télé laay waxee discours bu lu si ëpp ñu si waxtaan maa ngi pour wax gone yi di wax nañ noppi. lan moo tax gone parce que xam nga xam nga yàlla dafa def. Mm-hmm. Euh, le maire dañoo am ay relation yu yu particulier mm-hmm. euh, yàlla dafa def yàllaay teg nit ki position. li moo sànq. Mm-hmm. yàllaa def mu jiital mu mu doon seen patron. loolu yàlla ko def. buñ bañee bañ bañ bañ loolu yàllaa ko def. moo doonoon seen patron di leen jox ay directives di leen tafloo pancarte di leen takkaloo ay banderole di leen taxaloo si tali bi. loolu la galo loolu moom loolu le maire mosu leen koo sant man maa leen doon convoqué ay ñëw man maay wax li ñuy def bu ma ñëwee le maire na fekk validé fii lañ doon toog si salle bii may définir li ñuy def la communication bi muy def man maa koy définir ne ko waxal nangam waxee nangam parce que noonu lañ àndee li ñu ànd du ànd politique. moo waral ñu toog maa ngi moom bii néegam loolu je défi King Kong nag bii néegam ma man ko fekkee situation bu ne ñu toog bii néegam kaw laalam teg nañ fa boolu ceeb ba tàyyi maa ngi moom di añ maa ngi moom cunnum kenn raxuñu gone yi di wax dañ dañ ko mën a am moom sequ da koo sequt ak benn gone gi sax benn gone si ñoom ñii ah bon je connais ah waaye man je connais très bien le maire xam naa ko baax li ma xam si moom ñoom ñi xamuñu ko ñoom ñi wax ni billaahi bàkke Cheikh Fall kaar ba xamuñu ko ci moom

Mbàkke gis seen bopp. foofu la nit ñi di waxee. concernant ndox mi extension bi man dama yegg sama téléphone woo koñ bi mu dëkk. sama kër fi am ndox ak yenn yenn yenn yenn kër te loolu maa démarché depuis deux après les élections. yegg na sama téléphone nekkoon nak maire koñ bi ci Mbàkke la bok dugal fi ndox. amna équipe bu fi envoyé. mais ba léegi amuñu ndox. lu la tontu. non dem na daanaka ma ñu ngi ci ñu ci la wax. Mm-hmm. dinañ ci nek dina am ñu fi envoyer mm-hmm. mais ba légui ben goutte d'eau duggul ci carte bi ma ngi dégg ñu ngi def extension partout. Mm-hmm. yow ma si yëg damaa yëkkataal sama téléphone. wo le premier adjoint maire. wo le secrétaire municipal man lumay wax. man limay damay damay li état yoonu état lay top bala may wax. ku ci nek moom maire woo naa ko woo um, le premier adjoint maire. on a le secrétaire général municipal. sans suite. wàllu courant bi euh, c'est l'occasion moo ko maa ngi koy sant nag gis naa góorgóorlu yi mu def ci xaw ma budget mairie xaw ma budget euh, budget mais lu mu si mën a doon c'est bien pour Mbacké waaye dafa am lu may ñaawlu yàlla dafa def ñun ñu ay ndaw yor as tuut nen nañ ñëw jàppale ci dëkk bi jënd suñuy làmp mu ñëw ci kart bi fu ma defoon làmp ñu dindi ko fay ko yóbbu làmp ya wala daaneel ko wala fay ko def fa yeneen làmp ah ma jàpp way ma jàpp lu ñaaw la mhm. lu ñaaw loolu du encouragé nit ñi ñu jéem a def dara mhm. ndax man li ma li ma yor as néew di ko def mhm. moom laa ko defal population bi laa koy defal dama jàpp ni kenn ku ne fa nga nekk yaa fay maire bi ma koy def politique taxul ma def ko dama jàpp ni quartier bi agression yu bëri na ñu ngi fi violé bari na ma naa ko si jàppale. bi ma ñëwee ñoom ndekete yoo ñu ngi def fi politique dindi làmp yi. rafet na trop mais jàppoon naa ni làmp sëñ Mbacke ak làmp maire wuruñ doon lu ñuy xàmmee. war a dem fi nga xam dafa lëndëm am na yu bëri. wax ji wax ji yëpp. ñeent làmp lañ ci monté. waroon nañu dem quartier yi nga xam ne nii wala buñ jógee si koñ bi zone yi amul làmp ñu def ko fa. man bi may def amul ay politique amul connotation politique je suis désolé mais

li ñu mën a dugal suñu loxo ci dëkk bi ñu dugal ko maintenant nag c'est à lui d'apprécier bu ñëwee fekk lu suñ Mbacke Faye def wala Samba Ndiaye bu ko neexee dindi ko mais en tout cas bu ñu constaté que maire bi am na ci loo xam ne waru def na ko waru koo def wala mutu ko mënu ko ñun ñu defal ko c'est à lui d'apprécier nag jërëjëf sëñ euh, waaw sant bu baax sant waa Mbacke bu baax nag sant euh, les militants sympathisants mm-hmm. ndaxte nag

ku ci nekk dinaa ñëw seet si la fa nga nekk saafoonte ak yow wax ak yow déglu la ñu ànd jëm karam candidat moom alaa kulli ànd danañ ko am te incha allah buñ duggee ci mois d' octobre dinañ woote ndaje ma wax nag kan laa jàppale incha allah incha allah merci booku jërëjëf merci